mercredi 14 avril 2021 mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte nag ak contentement di jàkkaarloo ak in saa su nekk ci seen journal de l'arène ma ciy ànd à chaque fois rek sama góor gu ñaawal gi di Babacar waaye laata ma koy jox kàddu rek dama leen di baalu àq te di leen baal àq ci weeru koor gi di leen di ñaanal weeru kooru jàmm niñ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim te tàmbale ko rek ci alhamdulilahi rabbil alamin Babacar nuyu naa la. waaw soxna Ami maa ngi lay fay di la ñaanal jàmm yow tamit ah sama rakk sama jigéen bu ñaanal bi borom Ndeye Ndiaye. Mm-hmm, mm-hmm. di la wax baal ma àq. maa ma bu baax mm-hmm. ñu ñuy seetaan tamit ñu ngi leen di baal parce que souvent ñu juum. wala ñu def loo xam ne xam nga du méngoog yoon te dañu ñu koy jégal. te muy dëgg kon ñu ngi leen di baal si weer bu sell bi rek. di ñaan yàlla lépp lu mu ci lépp lu ñu si jaamu yàlla na ko yàlla nangu barke ñu dem sàlla def ko ay ngëneel. wàcce ko ci àddina bi rawatina Sénégal dàqal ñu musiba yeeg balaa yi te tàppe xol yi nangul ñu jaamu yi daal mm-hmm. maa ngi lay bëggee bu baax a mm-hmm. maa ngi lay delloo bëggee bu baax. voilà jërëjëf Babacar voilà chers téléspectateurs ñu dem seetaani revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 14 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb lañuy ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey kam xëy fi fësal ci xëtamu njëkk kenn la Zil Balde magi Ama Balde tamit di ab entraîneur am di kilifaam daal moo xëy tey njay moo xëy tey ne fang ca xatu yëglekaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb Zil nag moom que mu xëy di teg ci kawam pression du kenn ko dul ni ko Nicolaï Luc daal la ko Zil wax lenn la ne na ko na nga xam yow kii di ko Nicolaï daal mu gudd wala mu gàtt moom combat Ama Balde rek Modou Lo jàppal ne bu dee ci sunu côté la moom noonu waa Pikine maanaam contrat bi nu amoon ak yow ren jii lay jeex boo sàgganee ba combat bi amul ren moom boo yeboo nga seetee leneen te xam ne moom ama boo koy tëggal xanaa beneen combat ak beneen adversaire wala beneen contrat waaye dootul doon bii loolu waxi Zil Balde la du sama ay wax ba tey Zil Balde ci yëglikaay ba yemut ca lig Nicolay ba mu paree ca ka mu jàll muy ca mu war a bëri ak nga xam ne moom moo de Ama Balde daal la mu xamal Modou nee na ko daal li am ba des nee nga combat bi yow kenn gënu la koo bëgg waaye wax baax na bu buñ ca yeggee da nga xam ndax kenn gën na la koo bëgg wala déet te Zil yemut yamu ca ne na ko yow muru itam jàppal ne maanaam fi mu nekk nii moom bëgg bëre bañ bëre maanaam bëre rek moo fi des maanaam daal bëre rek bëre kese amoo leneen loo mën a def lu dul bëre te dinañu bëre te buñ ca yeggee daa xam ne lépp dëgg la keneen koo xam ne nii moom bëre woon na ba pare waaye ba mu bëree ba pare nag ñu daan ko muy Modou Anta la ñu ko dagg moom la yëglikaay bi suñu làmb xëy tey ñëw wax na ko muy xaalis boo xam ne bu takku la bu toll ci six cent soixante mille francs CFA la ñu dagg Modou Anta mu doon bëre Diène Kaïré kaka yore nag di ab manaan seram di Zal mbay ca Thiès la moo xam ne daal ñaawlu na mbir mi fa fa ñaawlu yem ndax daal daa ne lii moom tegewut fenn te tegewut ci aw yoon waaye yemu ca saisir nañ ña nga xam ne nii ñoom ñoo di waa CNC fas yéene nag def la nga xam ne nii moo di déclaration xamal leen ne daal lii ngeen def xale bi moom teguwut fenn ndax lañ ko dagg bari na lool lool lool keneen koo xam ne nii moom boo bëggee dégg-dégg ay amateur la jiite ñu jutte leen les jeunes amateurs muy góorandooy góora nag moom xëy na tey di wax ca li ka nga xam ne nii moom moo di lig Nicolas nee na lig daal li mu def mooy reefu amateur yi ak ñi bëgg làmb loola la ñëw andil ñu ko moo tax daal góor a jàpp na ne lig moom loo ci mën a dégg ñoom amateurs yi wala ñoom jeune amateur ñu ngi koy ñaanal ndax nag la mu leen andil moom loola waaye mën a wax neex na ba yegg ci lool keneen koo xam ne am na combat bu mu ay bu mu andi mooy ka nga xam ne nii moom moom moo di ka nga xam ne moo di aussin production moom la mu andi moom moo di benn combat boo xam ne daal ay espoir lañ muy professeur Mané ak ka nga xam ne nii moom moo di saa njàmbur yëglikaay bi di suñu làmb xëy na ñu xamal ne boobu combat daal ka nga xam ne moom moo di Ousseyn taxawal na ko keneen koo xam ne ci làmb ji la ne waaye fan yii moom sori na làmb ji lool ndax mu nga bitim réew di fa jongante muy rëg-rëg bër ki démb nag ginnaaw Singapour lam fa defati woon rëg-rëg yematu ca de si ñëwaat na beneen contrat boo xam ne bu bees la moo doomu Belarus daal ñoo war a daje le 29 avril sunu làmb xëy tey wax ñu ko waaja nag Kiril lañ koy wax gis kenn ko Kiril gis kenn ko daal la rëg-rëg war a jàmm jàmmaar lool le 29 avril muy MMA ba yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dem record tamit mu ngi nuy xamal loolu daal dina xamal ne Reug Reug daal signé waat na beneen contrat muy beneen combat MMA boo xam ne daal war na ko jongante ak doomu Belarus yëglekaay bi record tamit wax nañu lu mel ni ki noonu buñ fa jógee tamit fa nuy dem fenn la moom moo di Equivox TV mel ni ka fa nekk nag moom moo di Matar Ba Matar Ba daal démb la mu xamle ca micro Equivox TV lenn la moom ministre ba ñu dénkee sport bi nee na lii nga xam ne moo am dimanche ci arène nationale bi deete su ko nangu tey suba waxi noppi te képp ku ko def wala ña ko def nañu jàpp ne moom desut yem ci aj leen de plainte daal jàp leen yóbbu leen procureur mu laaj leen li ñu def fu ko teg bu laajee daan ñu teg leen ko kaso ne loolu moom pare nañ ngir seq kook ñooñu ndax fi mu nekk nii moom yow booy def jàppal ne daal maanaam bu la neexee nga ne gisuma kenn waaye kenn gisuma moom du wóor ndax fi mu nekk nii moom monde médiatique mi yegg na foo xam ne looy def jàppal ne ñu ngi lay gis moo tax Matar ba daal ne na ñoom ñépp daal des na leen topp teg leen ci aw yoon ba ñu xam ne arène nationale du yëfi kenn lépp ñépp la te lu ne ku ne nag ku ne da caa war sa gis sa bopp waaye wari su koo jàpp di ko tojate ak a yàqate rawatina loo xam ne ay milliards lañ ca financé ne lii moom day jeex nee itam nag yemu ca de te bu dakkul nee na des na leen faj ñoom ñooñu ba ñu xam ne faj nañ leen te bu jaree sax tëj arène national ba ñu ne ko ràpp tëj gars yi seeti leneen loo xam ne moom la ñuy def Matar daal loolu la wax le démb wala moom la wax démb moom mooy espoir réew mi moom Matar ba wax na ko fa nga xam ne moom moo di ca micro Equivox TV waaye ba ngeen koo xam ne tamit ci état boobu la nekk di ab maire nekk ci commune Ndondol di maître Pape Sène moom daal la mu fas yéenee def wala mu woote samedi daal mooy teg maanaam xeer wu njëkk ca stade municipal boo xam da koy tabax fa nga xam ne moom moo di ca commune Ndondol mel ni ki nag maitre Pape Sène moom képp koo xam ne chef de village nga wala nga nekk ci département de Bambey ak la ko wër di ab autorité invité na la ci loolu nga xam ne samedi jii nu jëm daal la ko fas yéenee def maanaam daal kon soo bëggee dégg dëgg daal gobis kon sunu commune léegi nag terrain football yaag vague yaag yu mel ne ki noona day jeex stade municipal daal lan nu fas yéenee tabaxal kon moon sax naa wax ne sama maire maître Pape Sène sama xarit a jaaraama maître Sène sa projet boobu yàlla na yegg ak jàmm ba waa commune Ndondol yépp jariñoo ko wala sax nag waa Sénégal ndax ay infrastructure ci ab dëkk du waa dëkk ba kese ñoo ko moom waaye public lay doon réew mi yépp ñoo ko mën a jariñoo voilà mu nekkoon revue des titres ñu daal di dikk ak yéen nag ci journal suñu lamb Babacar ci xëtam bu njëkk lañ fa gis rek moo di ki nga xam ne moo di Jules Balde di wax ak Luc Nicolaï moom nag la mu ko xamal rek moo di euh, contrat bi nga xam ne moo leen lié moo leen lié ci saison bi la war a jeex waaye ba tey rek euh, daal na ci laaxaal ki nga xam ne moo di Modou Lo nee na ko moom biir bëre wasin bëre maanaam combat bi daal day am. <laughs> day am amee waa Jules moom mooy magu Ama Balde. <laughs> Mhm. di kilifaam tey defe naa ne ci côté yépp mhm. parce xam tey mooy sa kilifa ci wàllu baay di sa mag mhm. ci làmbit mu jiitu la ci defe naa kon mooy kilifa am ci côté boo jaare mhm. tey nag a ah, li mu wax ça veut dire que dafa bëgg kon mhm. combat bi ñu bëree ko ren effectivement te tamit yaakaar naa ne combat bi ren lañ ko war a bëree insha allahu rabbi ñu ngi ñaan tamit ñu bëree ko te defe naa ne promoteur bi tamit loolu lay souhaité parce que léegi Nicolas mi def kera sorteem bëggoon ñaari mbër yi jàkkaarloo defe naa ne li mu jàpp mooy mbër yi bëree ren et puis tamit defe naa ne loolu la askanu làmb bëgg loolu la ñaari mbër bëgg parce que tax mooy loolu mooy noppal mbër parce que combat boo xam ne presque am na ñaari mm-hmm. mm-hmm. ci loolu xol ba defe naa jëm ci Modou Lo nag biir bëre wala wasin bëre mm-hmm. ah loolu tamit ba tey mooy li ma rek <laughs> euh, euh, ba tey loolu mooy bataille de communication bi ma lay wax si ñoom rek ci camp ñaari camp yi ne dañuy nappante ndax dem dégg nga Modou génn ne maanaam combat bi amul ku ko gën a bëgg di dànkaafu ama tey zil ne ko comme dañ eh, loolu laay tamit mhm. jàppal ne bëre bi moom day dana am rek par A ou mhm. Mhm. Ah, ñu ngi ñaan yàlla nag ñu bëre ren ñu xool ñoom ñaar fu wane di mu jékki bëtam mais li ñuy ñaan rek ñu def ko ci jàmm ak fair play ak sportivité encore une fois ñi leen di topp ak ñi ànd ak ñoom ñu ànd ak dal wàcce pression yi xam ne Sénégal la ñu ne réewum jàmm la et tamit parcelle ak Pikine wala Sénégal yëpp benn réew la quoi. Mhm. ñu bëree ko que le donte nag am na ay enjeux ku ci ne am nga ko faral. Mhm. mais ñu teg ko ci cadre sport fair play rek. damay mhm. dëgg. ba tey rek ci combat ki nga xam ne moo di Modou Anta ak Diène Kaïré bañ ci jógee nag euh, kii di Modou Anta dafa am ay sanctions financières financières yoo xam ne dafa daal di tegu ci kawam. mu mel nii rek dañoo teq 660 000 rek ca la nga xam ne fay nañ ko ci waaye ki di Zal Mbaye tamit euh, daal dina ci àddu rek xam ne xam le ne lii c'est injuste daal bay saisir ki nga xam ne moo di CNG. waaw Zal Mbaye moom moom moom mooy manager am par rapport ak nag dagg bi moom ah wax dëgg diis na de xaw ma nag lu mu def ba tax ñu dagg ko plus de six cent mille parce que ba naan six cent soixante mille defe naa ne loolu moom metti na encore une fois nag xalaatooñ na ne que xëy na yenn dagg yi mën na am mu wàññeeku par rapport ak bureau bu bees bu fi nekk mhm. doon def sanction moom du mën a ñàkk waaye nag it bon xëy loolu nañ xoolaat daal CNG bu bees bi parce que tamit bokkoon na ci li mbiri daan jooytu jamono Alioune Sarr mooy dagg bu metti bi ñu leen daan dagg parce que mhm. ñoom lag daggee rek ëmb ku ci ne lañ la laal mhm. xaalis bu takkoo takku la mu doon ñu laal ko six francs jin ñu laal ko tamit defe naa yooyu tamit mën na ci gën a waxtaan xool tamit mbir yi nu ñu koy gën a mën a alléger wàññi ko waaye mbir yi tamit ñu jéem moytu li nga xam ne nii moom lañ leen di tere parce que tamit sport bu mu mën a doon wala lu mu mën a doon mhm. foofu moom ay règle pour que ñu mën ko ñu mën ko organiser mu tege si yoon quoi mhm. dëgg la mhm. bu jógee foofu ki nga xam ne moo di euh, Gora Ndoye moom itam xëy na di wax ci suñu làmb nee na daal Luc Nicolaï a concrétisé le rêve des amateurs waa Gora boo ko déggee moom mooy jiite les jeunes amateurs moom mooy seen président waa xam naa nag fi muy waxee mooy par rapport combat Ama Baldé Modou Lô mhm. ndax daa nekkoon combat boo xam ne dañoon daan wax naa man naa wala du am ku koy tëgg ndax dana am ak nangam mhm. tey Luc Nicolaï indil leen ko te ñu am yaakaar ne ren dinañ ko bëri kon xam naa moo tax mu jàpp ne kon daal gént ga gént ga amateur daan tëdd di ko gént ci combat boobu moom la leen Luc jox ah loolu nag defe naa lu yàgg am la par rapport ak Luc Nicolaï ak yeneen promoteurs yi amateurs yi yàgg nañoo bëgg combat promoteurs yi indil leen ko mhm. defe naa ne loolu tamit moom mooy li nga xam ne moom moo fi bàyyi promoteurs yi mhm. encore une fois kon dañuy ñaan yàlla rek combat ñu yegg si ak mais di ñaanal promoteur yépp ku ci ne la nga sumb yàlla na nga ko yeggale ak jàmm parce que tey defe naa ne combat boo fi jël tey seen tey ñu taxawal ko promoteurs yi taxawal ko jàppal ne ndax dëgg yàlla combat amateur la te mhm. lamb pire la. Mhm. mais nag bii da ci ëppati doole muy Modou Lo ak Ama Baldé mhm. daa bokk si combat yoo xam ne ren amateur yi dañ ko doon reefe ba jot. c'est vrai c'est vrai que ñu koy xaar bëri nañ torop bien sûr. foofu ki nga xam ne moo di professeur Mané ak Sanjambour euh, Ousin production moo daal di dëdmal seen combat. waaw Ousin production di jeune boo xam ne moom tamit ñëw na si lamb fas yéene tëgg lamb. defe naa ne jot na fi am lu mu jot def daaw ren mu dikkaat. indi saa njàmbur ak euh, ki nga xam ne moom mooy mm-hmm. professeur Mané muy combat espoir boo xam ne ñu ngi ko ñaan yàlla mu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm rek mm-hmm. parce tamit xam nga ku nekk rek li olof neex naan borom bi ku mbëgg boo xar xol bi ami mm-hmm. maa nga si fekk xam ne loolu la rek parce gis nañ ko mu def koo xam ne royukaay la ci làmb tey muy Gaston Mbengue jël ko def ko idolam mhm. dafa naa ne kon bu jaaree ci trace boobu ëllëg mën na dem bay tëgg affiche yu mag a mag mhm. Mhm. bu ñu jógee foofu ñu daal di dem seeti journal record lañ fa fekk nag moo di combat MMA troisième combat wu Reug Reug mu war cee dajal ak ki nga xam ne moo di euh, Belarus waaw benn Belarus la ci war a dajee mhm. la waaw doomu Belarus ah, waaw li koy ñaanal daal mooy mu am si ndam rek pour le 29 avril boobu mhm. parce que rëg-rëg tamit wax dëgg yàlla fi nekk nii moom ah mu ci MMA bi te saf na ci sap mhm. fi mu nekk nii moom bu bëggee dégg dégg ami moom ah mu ngi wane boppam ñu koy ñaanal daal comme ni ñuy gisee mu koy euh, entamé rek bu mu ci song daal. Mhm. yal na si génn ak ndam lu set wecc te mhm. nañ rek. bu seen reporter yooyu du wax turam bi damay rek naan rëkk rëkk. waaw <laughs> tubaab yi waaw que. tur a jaaxal <laughs> tur da leen jaaxal ndeysaan. dëgg la bu ñu <laughs> jógee foofu ñu dem rek Equivox TV Babacar mel ni démb seeti woon nga ki nga xam ne moo di euh, ministre des sports. Matar Ba waaw démb waaw par rapport ak li taxoon démb nag moom parce que démb dafa daloon waa CNC. Mhm. waale woon presse bi. li ko waraloon nag bokk na ci saccage yi ñu gis gisoon bërki démb arène nationale mhm. ay xale yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu la wax li ñu def fu ñu ko teg parce que mhm. amul foo koy teg parce que maanaam boo ne reewande sax bu bu amul lu romb reewande sax dag naan loolu ñu def romb na reewande mhm. kon defe naa ne loolu taxoon na nag mu woo ñu jiite làmb ji moom mi nga xam moom mooy ilif sport réew mi def déclaration xamle ne nag mbër yooyu dèjà ba mbir yi amee ba bët setee CNG jël nañu seen ay matokaay teg leen ay daan maanaam ferme ak benn un an de sursis. Mhm. ña nga xam ne jàpp nañ tamit ñoom ñoo doon damm sées yooya mhm. yaakaar naa ne ah ñu ngi leen di traqué te bu ñu sàgganee mhm. danañ wuyu ci yoon mhm. te bu ñu wujjoo ci yoon itam defe naa nag lu mën a xew ñoom ñoo tooñ ndax mënoo fekk édifice public loo xam ne dañ ko tabax voilà non boo ko gisee sax yaram day daw loo xam ne dañ ko tabax pour Sénégal yépp yow nga jël ko di ko jàpp di ko toj di ko mhm. yàq te mënoo wax lu tax nga di ko def xanaa damaa rew wala dama faalewul kenn ah loolu nag il est l'heure comme ni ma ko waxoon keroog état du Sénégal jël ci ay matukaayam te encore une fois il faut que ñu conscient que ni ñun gis nga li état bi di tabax pour ñun bu ñuy manifester wala ñu am lu ñu naqari wala ñu am bànneex waruñu ko di laal parce que xam nga lu tax loolu ñun ñoo ko moom. muy ab estade muy lu mu di marché. mu di supermarché. mu di télé bi mu di télé maanaam li nga mu di école wala mu di hôpital wala ambulance loolu ñun ñoo ko moom ñoo koy jariñoo kon loolu waruñu di ko yàq. Mhm. ami war naa mën a exprimer mu sama bànneex wala suma ma naqar te du ma yàq loo xam ne nii mhm. mbooloo mi ñoo ko bokk parce que yàq baaxul. doomu aadama du yàq. Mhm. vraiment. doy na waar waaye ba tey rek fële ca ndol ndol ki nga xam ne nag moo di sa maire mu mel ni moom dafay tabax foofu stade municipal. <laughs> waaw waaw lool de boo ko tuddee dafay reetaan moom mhm. parce que boo nee ndondol. Mhm. xam nga dangay dellu sama dëkk. waaw sa fief la maître Pape Sène di sama maire commune. <laughs> ma koy nuyu encore une fois di sama xarit defe naa ne loolu moom ah. am na yaakaar naa ne incha allah rabbi dañuy ñaan yegg ci ak jàmm rek muy samedi 17 mhm. avril bi ñu jëm mhm. la la woote foofu ñi nga xam ne ñoom ñooy chef de village yeeg mhm. autorité yi ne si autorité yi ne si département moo doon yooyu football moo xam nawetaan yi la wala nangam dañ dem foofu ci terrain Caritas bi bi nekkoon foofu daan fa football nawetaan dem nañ ba benn moment ñu tere ko mënatuñ ko faa defee ñëw ci CM bi terrain CM bi lañ doon defee nawetaan te commune Ndondol dafa nekk commune boo xam ne li mu boot ci ay village dafa bëri nekk commune bu bëri ay nit léegi macha allah defe naa kon waxuma la sax benn stade municipal na yeneen boo gis ci commencé kon monsieur le maire ñu ngi koy encouragé ci projet boobu di ñaan yàlla mu concrétiser ko yeggal ko ak jàmm ak tamit yoon bi nga xam ne moo jógee nangal mu jëm Ndondol dem ba Fissel Mbarane yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne yaakaar nañ am nañ yàqin ne dina ko def waaye bi leer bi moom boo xam ne mën nañ cey dut baaraam mooy mooy bu samedi bi di ñëw moom stade municipal bi moom mm-hmm. inshallah allahu rabi dinañ ko commencé. incha ci samedi ñu ñaan yàlla mu yegg ak jàmm bu ñu mën ko jëriñoo. am na solo voilà xibaar yi jaar fa ndar géppe looy tàggatoo mais xam naa daal xew Equivox su tey mosu fee xaw. gaa yaa ngi nelaw <laughs> ñu sànni ay loos te kaaral bi li mën nga koo gis. non man bi ma dugg si dama tiit de waaw ñoom dafay nelaw man maa fekk gaa yi toog mel ni ñu ñu réunion. ñi sànni ay loos asu mi ne woon ci waaj bi nga xam ne mu gënoon bëri wax foo ko fekk mu ngi déglu rajo bi ci mu ngi mel ni ku mer ma ne ko asu mbaar dama laa def tey dara <laughs> yow itam dama ñëw fekk ah, la nga tëg jël sa malaan déet dangaa sàngu kat man ku nelaw dina mel ni man Ah, ah dé fekk ma la nga sangu bàyyi li ngay def sangu <laughs> kon noonu la fa demee loolu la koor gee ko waral na nañu xam ne rek ak jaamu yàlla la mhm. mbégte la wéeru mbégte la wéeru yërmande wéeru ngëneel la mhm. nañ ñaan yàlla rek yàlla defal ñu saxadatu daare ñi tàppe xol yi barke yonent bi sallallahu wasallam xam nga kooru jàmm di ñaan jàmm Sénégal di wax ne ah, yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy def lu baax parce mooy li am solo mm-hmm. leneen li ci des moom amul benn solo te def ko da lay rek mm-hmm. kon yàlla yàlla xiir nit ñi ci baax te defe naa itam lu baax kenn bañu ko mm-hmm. ami ki bon sax bëggu bon dëgg la waaw bu sañoon day baax kon yàlla na ñëpp baax barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la kontaane di ñaanal jàmm nag saa su ne jërëjëf <laughs> voilà mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy daal ci seen